FM, fréquence 106.0, adresse rond-point de Mbaké, près de la commune de Touba, en face de la route de l'héliport.
أزين معجمات والكاف والراو للراء وال bokki auditeurs seen rajo Benno FM 106.0 asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ni ñu ko baaxoo daan def dimanche bu jot bu ñu yegsee ci waxtu wii rek seen émission bi ñu jagleel immigré yi muy waxtaan wi nga xam ne dañ ko jagleel suñu bokk yi nga xam ne ñu nekk ci bitim réew ak ñi nga xamante ne bi ñooy tukki tey di jaar ci anam bi nga xam ne mooy anam bu jaaduwul bi ñuy waxtaan ngir andi solution boo xam ne askan wi dañu mën a daal di jaaju nag fexe jaar fi nga xam ne nag mooy askan wi nga xam ne mooy anam bi nga xamante ni bi mooy anam bi jaadu tey nag ñu am ci suñu invité koo xam ne jaaroon na ci gaal yi ba demoon ci bitim réew wala xaj na jaaroon na ci gaal yi te jotee ak bitim réew mu nekk suñu gan tey ñu bëgg a waxtaan nag ci wàllu tukki moomu nga xam ne nag moo am te ni ñu koy defee bokkut ak anam bi nga xam ne moo jaadu te ñu gis ne it suñu askan wi ñu baree bare ñu ngi ciy ñàkk seen i bakkan tax nag tey nag ñu bëgg a dellu siwaat nag ngir gën a dellee siwaat xeli nit ñi ci yeewaat leen ci tukki moomu nga xam ne ñu ngi koy def te defuñu ko ci anam bi nga xam ne mooy anam bi jaadu loolu moo waral tey Benno FM mu am ci seen invité sëñ Abdoulaye Ndiaye mu nekk suñu gan dañu koy bàyyi rek sëñ Abdoulaye mu daal di indi ab nuyoom ak auditeur Benno FM sëñ Abdoulaye.
waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu Sénégal gépp maa ngi nuyu képp kuy teewlu émission bi waa Benno FM waaw maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar baax a baax baax di leen ñaanal jàmm. di ko ñaanal ñëpp di ñaan Cheikh Mountakha yàlla yàggal ko fi lool di wéral ay cëram waaw jërëjëf sëñ Abdoulaye naa dafa mel ne añ bi daa bari ba tax wax ci kàddu gi jógut ci kaw xaw suufi waaye xam naa dana dana dana yëkkatiku ba dellusiwaatee ndax añ bee bari auditeurs yi ñuy déglu Benno FM seen mbokk Modou Makhtar Diop ci wàllu présentation bi sëñ Abdoulaye Ndiaye mu nekk suñu gan tey seen émission bi ñu jagleel immigré yi ñu waxtaanee lu jëm ci wàllu tukki mi tey nag ñu ko waxee léegi rek sëñ Abdoulaye moom bokk na ci ñi nga xam ne jot nañu jaar ci tukki bi demoon nañu bitim réew bu ko defee rek dañ leen di bàyyi bàyyi ko mu dikkal nu sëñ Abdou gis nañu Sénégal ndax comme Sénégal lañ nekk Sénégal la ñuy wax gis nañu suñu bokki Sénégal yu bari yoo xamante ni bii loru nañu ci mbënn mi te xaj na li ëpp ci li tax ñu loru xaj na ñàkk xam la mooy ñàkk gunu ñàkk jaar ci anam bi nga xam ne moo jaadu ngir tukki. te gis nañu ne gaal gi it gaal yi it lu bari ci sunu doomu réew ñàkk nañ ci seen i bakkan te xaj na li tax ñu ñàkk seen i bakkan mën nañ cee jàppe ak dër bopp wala mën nañ cee jàkkee ñàkkee gisane ak bëgg a tukki la wala bëgg a tukki bi nopp jaaroo ci anam bi nga xam ne moo jaadu te bari ay risques yu bari yoo xam ne nekk na ci te risques yooyu it xaj na ki nekk ci réew mi bëgg dem ka dee ci réew ma nga xam ne jaarul ci mbënn mi dem mën naa ba ña xam jafe-jafe bi waaye ki jaar ci anam bi jaarul ba tukki ba yegg mën naa xam jafe-jafe bi waaye ki jaar ci anam bi jaarul ba tukki te yëggut kooku mënta nekk li jafe-jafe bi nga xam ne am na ci yoon bi ndax comme yàlla àtt ne moom am tukkeem yëggut yàlla moom la bakkanam kooku mënta indi résultat waaye ki am résultat boo xam ne mën na ko baaxee doomu réewam ngir xaj na moom bi muy jóg di dem jógoon na ci ngir bëgg a tukki ngir bëgg a tekki ndax nit ñi loolu la ñuy wax waaye gis nañu ne dem bi gis na ci loo xamante ni bi tey ku ne ko woon ñëwal nga delluwaat ci gaal yi dara àddina du ko mën a tax a delluwaat kooku nag bëggoon nañu kon nga andil lu nag tukki bi nga xam ne am na te jaarul leen ko ci alam bi jaaruwut lan moo ko waral.
waaw sëñ Mortalla xëy na. tukki bi Modou Makhtar.
sëñ Modou Makhtar. xam naa bari na ñoo xamante ne bii xëy na ñàkk xam moo leen ci dugal. ci lu bare bare bare parce que man sama bopp bi may jógee Sénégal di fa dem. am na lu ma jotoon a dégg sax mais taxul woon ma xam dëgg-dëgg lan mooy cause bi mais yàlla dogal na biñ demalee suñu bopp xool ba gis biñ ñëwaatee fii xam nañ conséquences yi ci nekk yu baree baree bare te li gën a metti ci yoon bi mooy foo jub rek da nga naan fii fi laay yem waaye soo ko rombee la ca kanam moo gën a metti li nga weesu waaw yoon boobu moom dara yomb ci waaw parce que ñun bi ñuy déparé Sénégal. fii laa déparé Touba laa déparé jël bus dem Mali jóge Mali dem Burkina jóge Burkina dem Niger jóge Niger doo ko dugg Libye mais dama jëlale diggante Niger ak Libye mais diggante Sénégal ak Niger rek beneen affaire la lu ne mi ngi ci yoon bi lu ne mi ngi ci yoon parce que ñun bi ñu déparé fii bi ñu dugg Mali rek te nañ ñu fa plus de une heure de temps wala deux heures de temps dugal ñu ci benn foo xamante ne bii nii ku nekk ci ñun ñu ngi loolu laaj dix mille ñii quinze mille waaw
foofu wax nga bi ngeen départ Sénégal yéen ngeen départ Sénégal da ngeen nekkoon équipe bu boo xam ne da ngeen doon dajaloo pour wala kenn ku ne nga booroon sa saag rek bul dem.
non man kenn rek la àndaloon sama benn xarit ñoo bokk dëkk am mbos la dëkk man man ak moom kese ñoo àndoon ak benn booy bu jóge woon côté feej moom it ci bus bi rek lañ daje mu ngi jóge woon côté Louga côté Louga la jóge woon mais ci bus bi lañ daje waaw mais moom lan moo ko wax ne da ngeen dem.
non dañoo daje ci bus bi bi ñu dajee ci bus bi bi ñuy waxtaan xam nga sénégalais ak morom ma rek bu ñu gisantee connaissance bi dugg ñuy waxtaan ñun laaj ko mu ni non man libi laa jëm quoi ñu ni ko même ñun ñi foofu lañ jëm mu ni kon mën nañu bokk yoon ñun ñett ñu ànd mobilisé wu ànd quoi
nga xam ne yéen a bokk benn yoon yéen ak yéen ak ñoom.
waaw ñoo bokk benn yoon bi ngeen di dem ndax bëggoon nañu xam it yoon bi ndax tudd nga oto yi mais oto yooyu dafa ñu leen di laaj wala da ngeen di paas rek pour dem wala dafa am accompagnement boo xam ne ñoom ngeen jokkoo ci téléphone ñu leen wax ne fii ngeen di jaar fii ngeen di jaar wala.
non parce que man bi may dem amoon naa ay samay xarit yoo xam ne foofu lañ jaar. xam nañ yoon bi. ñoom ma waxoon circuit bi. fi ngay jaar yëpp ñoo ma ko waxoon. waaw.
bi ngeen di nekkee Burkina foofu am ngeen fay jafe-jafe nga ne.
non Burkina man aw ma fa jafe-jafe mais ki ma àndaloon. bi réeroo. moom am na fa jafe-jafe parce que bari na ñoo xamante ne bii nii Sénégal. ñu ngi leen di sarxal. ñu dëjël na leen xaj bépp ñu ngi Burkina. parce que Burkina am na benn prison boo xam ni. ay bandi ñoo ko moom. te buñ la jàppee buñ la yóbbee foofu ba yoroo xaalis duñ la bàyyi.
Burkina.
Burkina bari na ay Nigéria yu fa nekk. ay Malien. xeet bu nekk ñu nga fa surtout jigéen ñi. da ngay gis koo xamante ne bii dafay nekk am fa ay doom yoo xamante ne bii nii te lee leer ni kii boo ko ay mbokkam fàtte yàgg na. ñu ngi foofu toog.
Burkina Faso waaw parce que booy bi bi mu ñëwee nee na ñoom bi leen laajee xaalis ñu ne yoruñu xaalis dañ leen a yóbbu ci benn kamb boo xamante ne bi ñoom bu ñu fa demee dañ leen fii fi la ñuy rende nit ñi su ngeen yoru xaalis woote wu leen ñu jox leen xaalis fii lañ leen di rey leen ti ñoom bi ñu demee ay yére ak ay yax lu ne lañ fekk foofu ci kamb bi.
wóor leen ne bu ñu joxul ñu rey leen.
waaw ñu ne bu ngeen joxul xaalis woote wu leen ñu jox leen xaalis fii lañ leen di reyee booy dañoo mujj ni danañu yónnee xaalis gars yi bàyyi leen foofu ci biir campus bi ñu tëdd bi ñu tëddee garde bi dafa nelaw ñoom yàlla dimbal leen ñu génn bi ñu yootee génn daw bi ñu dawaatee bi ci tali bi ci lañ jogaatee foofu tali bi ñu gis foofu ay moto ñun leen Wagadugu lañ bëgg a dem am mooy capitalu Burkina après ñooñu doog leen a jël ñu fay leen ñu doog leen a yóbbu Wagadugu waaw.
yéen foofu bi ngeen fi jaaree da ngeen continuer wala da ngeen faa jaar toog fa.
non man bi ma demee Burkina damaa continuer. waaw parce que sama xarit yooyu waxoon nañ ma moto bu ci yéeg. parce que boo demee Burkina dañ ñoom waa bis bi ci boppam dañ lay jaay da ngay dem ba fenn ñu la dañ lay yekkale wala ñu naan la da ngay wàcc teg dugg ci moto yi ñu tegg la police yi moto yooyu boo ci duggee ñooñ ñoo lay sànq. ñooñ ñooy dem yóbbu la ci prison yi ñu lay sonal di la laaj xaalis. soo amul xaalis sa bakkan xaaj na fa fa lay des. waaw.
waaye bu bu fekkee ne Burkina nga jógee nag diggante boobu rek moo fa am ab daas daas ah.
Burkina jëm fan.
diggante boo génnee li fi.
Burkina jëm Niger Burkina jëm Niger diggante boobu rek mu fa am danse danse boobu.
diggante boobu am na danger mais danger bi taxul mu garaaw. parce que boo yoree xaalis sa xaalis boo ko yoree fu bëgg ne mën nga fa dem parce que boo génnee foofu boo génnee Burkina première poste bi bañ fa demee ñun ñu ngi ñu doon laaj vingt mille vingt mille.
Sénégal yi Sénégalais tout.
mboole ñi nekk cooto ñu ne ñi bëgg dem rek.
bis yi ñi ci nekk te yoroo carte d'identité Burkina loolu ngay joxe vingt mille vingt mille quinze mille quinze mille te boobu mujj gi. man ak ñi ma àndalaat parce que benn réeroo dafa dañoo ñëwaat dañoo gisantewaat après ma ne ko sawaay mun naa ma ne ko ñun ñii bu ñu toppee li ñuy laaj nii di ko joxe di ko joxe mun naa ma ne ko ñun duñ dem léegi xam nu ñuy def mun naa mun bu ñu laajee quarante nañ leen ko jox bu gaa yi dugg nañ taxaw na la ba nit ñi dugg ba gën ñu doog a dugg léegi suñu wootee nit ñi dugg suñ limee suñ turu quarante ñun duñ na koo dem dañuy bàyyi ba ñëpp génn ñu dem suñ demee bu ñu laajee loolu ñun yoruñu ko. lu ngeen ñu jàpp ñu palpe ñu làmb fépp duñ gis xaalis ñun leen benn 5000 bii liñ dese ñu mujj obligé jël kenn ku ne ci moom 5000 muy 15000 francs ñu bàyyi leen ko doog a jël suñu papier dem.
mais léegi yéen xaalis bi nu ngeen ko def kon fu ngeen ko teg non xaalis bi ñun amoon nañu denc dencukaay xaalis boo xamante ne bii nii mën nañ ko denc foo xam ne mën nga ñu wër wër wër wër doo ko gis parce que dañ ko yàgg soraale parce que yoon bi dañu dañu waxoon lépp dañu yàgg soraale yoon bi xam nañ li fi nekk kenn mënul ci kenn mënul am maaqaamal làmb ci ñun ba gis ci ñun xaalis
te yéen a ngi xaalis waaw te ñu ngay xaalis man sama xaalis yor naa ko ba biir li bi li nga xam ne moom laa war a lekk ah ak li may jëndee lépp mi ngi ci man mais da nga yoroon poos wala da nga am foo ko kole woon wala lan non yoruma woon poste mais boobu ñu ngi ak ay secret yoo xamante ne bi mën nañ ko def foo xamante ne bi doo ko gis parce que boobu ñu ngi ak ay dàll tronique yoo xam ni dàll bi dañ koy dajji suñ dajjee dàll bi dagg ci kaw foofu la ñuy dugal xaalis bi takk ko takk lancer yi nga xam ni même dàll bi boo ko sumee sànni dàll bi sax du tax xaalis bi dañ lenn li dañ koy def ci ginnaaw kole waale ko ci dàll bi dañuy jënd kol suñ ko ci defee suñu wàññee lii def ko ci kole waale ko parce que am na noo koy defee bu baree ba bare day jóg noonu lañ koy wàññee tasaare xaalis bi def ci dàll bi def ci bii def ci suuf bi def fii tasaare ko quoi
mais yéen bi ngeen ñëkkee libi nag yéen euh, ban jafe-jafe ngeen dund foofu libi no li bi sore na Niger Niger boo jógee Niger euh, yaa ngi nekk benn dëkk bu ñu naan Akades Akades boo fa jógee rek bala ngaa dugg li bi foofu ku rëccu rek foofu nga rëccoo Hmm?
barke Sëriñ Saliou maanaam foofu boo fa demee xam naa li ngay kii eh, ni ñu ko waxee te kii eh, dëkk bi eh, Akades Akades Akades tey bu ñu fekkonte ne tey da nga fa da ngeen faag si nee nga ko rëccu foofu ban rëccu nga gis moo fay am Akades li tax ngay rëccu mooy désert bi parce que désert bi mi ngi mel na tey nga jóge fii rek ni damay dem Bamako amul garab amul ndox amul lekk amul dëkk amul dara àll la suuf boo xamante ne bii kenn mën la wax suuf bi ni mel am na milieu yoo xam ne boo ci wàccee sa tànk sax day dugg Hmm?
ndax suuf bu bare ñun suñ première yoon diggante Akades ak Libye xëy nañ guddi gi lañ départ ay vingt heures vingt heures lañ départ parce que daw ba ay midi une heure oto bi panne moteur ci àll bi
Hmm?
mu leer na ni booba daw nañ ay trois cent kilomètres ci àll bi oto bi panne ci digg àll bi ñu toog fa deux jours suñ lekk bi jeex tàkk kenn amatul loo lekk ndox bi jeex mboolem ñi ànd kenn rëccu rek vingt cinq personnes kenn yoratul lekk ñëpp jaaxal boobu ñaari jigéen ñoo ci nekk mu jigéen ñu obligé dem ci naar bi naar bi nga xam ne moo doon dawal oto bi ñu laaj ko ni ko léegi ban dëkk moo fi gën a jege naar bi woon ñu benn montagne ni montagne bële ci ginnaawam dañ fay gas or du ñàkk ay nit yu fa nekk ñu obligé léegi te bu ñu joxee ci naaj bu tàng bi dañuy daanu parce que booba ndox yi ndox rek lañ des ndox bi barewut ndox bi booy naan kubéeru bidon bi ci ngay xel yi ba mu fees nga guux nga tooyal sa xol parce que ñemewoon naa ndox muy jeex ci àll bi am na ñu jot a jeexal sax mais man bu ma jeexalee ndox bu ma ñaanee keneen koo xam ne du sénégalais du ma may yow sénégalais bi rek yaay jeexal ñaan sa mbokk sénégalais mu xool day euh, x- euh, def ci bidon bi ci kubéeru bidon bi lay def jox la nga naan ñu jóge foofu ma ne leen léegi bu ñu toogee ba 6 heures nañ jóg dem bu ñu doxee ba ak ci montagne bi xanaa dañ am foofu dox ñu jóge foofu ay 6 heures ci ngoon di dox ba une heure du matin xeer bi mel na day aneer ñen ñu bare mëntuñ dem ndax sonn ñu tëdd foofu nelaw deux heures de temps cinq heures du matin ñu jógaat di dox di dox di dox di dox ba une heure ci bëccëg ñun ñëpp nag ñu sonn kenn mëntul dem da ngay gis kuy dox ba jàgg sax mu daanu ñu lungu ko am na ñoo ñoo xam ne des nañ tuuti kàttan ñu jéem ko lungu affaire yooyu noonu mais fi ñu yàlla dimbalee mooy dañuy dox ba jàgg rek benn oto traverse ñu après ñu arrêté ko ni ko ñun ci xeer ba lañ bëgg a dem mu ne léegi da ngeen ñuy fay vingt dinar vingt dinar ñu ni ko léegi d'accord mu yeb douze personnes yóbbu ñëwaat jël yeneen treize personnes yu des mais bi ñu àggee ndox bi bari nañ ñoo xam ni daanaka ñëpp dañoo xam Hmm?
ndox bi soo koy naan da ngay xëm ndax mar ndax mar da ngay mar bay xëm mais boobu sax garaawul am na ci suñ so keneen koo xamante ni bii ñoo bokk dëkk ñoom seen oto dañ leen a jàpp am nañ deux jours ci àll bi deux jours ci àll bi militaire wàcce leen foofu parce que ñoom dem nañ ba ne ñoom ñoom ñi nga xam ne ay nigérien lañ ñoom boo dee tuur ndox dañuy ñëw di ko dëkk ndax amatuñ luñ naan barki Sëriñ Saliou ñoom seen loxo yi mun duñu écarté wu seen baaraam yi dañoo mujj tappaloo mun duñu écarté wu ndax mar boo dee saw boo dee tuur ndox maa ngi tuub sax ci kàddu geeg yéeme gi mu yéeme mais émission bi moo ko laaj soo dee tuur ndox sax dañ koy dékk di ci def meew di ko naan mais ñoom ñoom dañoo mujj da- ñoom ñëpp dañoo mujj gaañu même ñu ko doon naan ñoom ñëpp dañoo mujj dee ci dessert bi parce que loolu acide la baaxul dañ ko doon boole ak meew di ko naan mais ñoom ñëpp dañoo mujj faatu waaw affaire yu mais yéeme. yu yéeme ñi daal.
faatu ñoom yéen ngeen leen gis ñi faatu ñoom yéen bien sûr léegi ñu ñu ñu faatu ñu leen romb jàll nooy def foofu yoon boobu maanaam ñun suñ deuxième deuxième yoon boobu pare ku ma ci première vase bi première vase bi jógee foofu ñu ñu woo ñu woote akades ñu war ñoo yónnee oto ñoom mënuñu ñu yónnee oto dañoo mujj obligé waat foofu jëlaat oto oto bi dem ba des ay ay vingt ay dix-sept kilomètres te ñun liñ doxoon rek ëpp na cent kilomètres 17 kilomètres ñu ne ñu léegi naar bi ni ñu ñu doon yóbbuwaat akades ñu léegi da ngeen di toog fii bu guddee naa leen jël si te boobu yoruñu lekk yoruñu naan ñu wàcce ñu fa ay 2 heures ci bëccëg ma ni ñi ma àndaloon parce que am na ay 3 sénégalais ba tey man leen na leen dem parce que fii bu ñu fi toogee. naar bi du ñu jël si te fii fi la ñuy dee te yàlla dimbali nañu bañ ñëw fii dëkk soreetul fii na leen dem yàlla dimbali ñu nigériens yi ñoom ni demuñu ndax peut-être xëy na seen fit mayu leen ko ma ànd ak ñi ma àndal plus de six personnes ñu dem bi ñu demee ba dopp benn dëkk ñu toog foofu après ma woote ni leen bi oto bi ñëwee ñun ñu ngi ci dëkk bi ñu toog foofu am fa ndox ñu naan xëppoo ndox sangu tuuti suñu yaram xaw féex ñu tëdd foofu nelaw tuuti ba ze- ba ay vingt deux heures gisuma oto ñu dugg ci kër gi kër gi may ñu ay macaroni ak ay diw ak yooyu ma taal togg loolu ñu toog lekk bi ñu lekk ba pare ma ne leen léegi xam nga nan la ñuy def ñu ne ah ma ne làmp yi la ngeen di seen ñu ne ma ma ne ak des sax parce que parce que ñii nee nañu plus de 17 kilomètres 20 kilomètres na leen dem ñu jóg ci guddi gi dañuy dox di dox di dox te ñi ngi doon jaar ci ay xur yoo xam ni barki Sëriñ Saliou Mbacke bu doon bëccëg jamono ji ma toll ku ma ko bëgg a jaarloo du ma ko jaar billaahi wallaahi taala xur yoo xam ne lëndëm gi muy lëndëm da ngay dox ba ci yàgg dégg dugg sa tànk bi waa nga taxaw day bënn daal ba jàll sa tànk bi sa daal am na ñoo xam ne sax seen daal yi dañoo mujj dagg ci daal bi yàqu tànk ne la ñuy doxee bi ñëwee ñu bare bare seen tànk yi dañoo dañoo yàqu dañoo dagg ba yàqu mais yéen téléphone yi ngeen doon def fu ngeen doon téléphoné da ngeen yoroon ay téléphone ay numéro yu yu réew mi wala non man dama amoon téléphone man dama yoroon téléphone comme téléphone simple yi laa yoroon boo xam ne batterie bi dafa dëgër bi may dem dama jëndoon crédit sama téléphone garder ko
mais pis Sénégal mën na dox ba foofu non puce Sénégal du dox foofu Niger boo fa demee dañoo am seen puce bopp dañoo am seen puce bopp bi ñu jógee foofu di dox di dox di dox ba ay 10 heures ci lañ doog a duggee waat Niger
léegi bi ngeen diggee bi ngeen diggee foofu nag léegi ba foofu amul amul jafe-jafe bu fa amoon noonu Niger bi ñu ñëwaatee amul jafe-jafe Niger moom boo fa duggee wax dëgg yàlla biir Niger moom ñun bokk fi ñu nekkoon ñun amuñu problème foofu parce que da fi ñu ngeen nekk da ngeen lekk di naan def lépp ah waaw parce que ay coxeur ñooy nekk foofu boo fa nekk ñoom ñooy gérer sa lépp ñoom ngay fay ñoom ñooy fay borom oto bi ñooy wut oto fay borom oto bi pour mu yóbbu leen libi waaw yow kak sol bi ngay waxee rek
waaw coxeur bi fa nekk moom ngay waxal waaw léegi yéen diggante boobu da ngeen di fayaat ñu yóbbu leen Libye mais bi ngeen demee Libye da ngeen am ay contacts yoo xam ne contact ngeen ah ngeen dem waaw daa am ay coxeur yoon bi lépp ay coxeur la ñoo xaay loolu rek ay seen métier waaw ñoo xam ne loolu rek la ñuy liggéey da ngay dem nga fay leen ñu génnee la ñoom loolu rek la ñuy liggéey léegi nag mais boo ñëwee Libye nag bëgg a jàll biir Espagne it foofu it xanaa lan mooy dan ngay def ba dem parce que it xanaa it dig- diggante boobu Sénégal bi nga xam ne jóge na Sénégal jëm eh, ne damay tukki te xañ ngay fi muy jaar fépp day tañaxut dem fu mu desee Libye ban gindeek ban gindi moo ko gindi lan moo ko wan ne ko yow fii mooy Libye ak it lan moo ko wan ne ko fii temps ngay fay dem Libye wala foofu da ngeen am fu ñu leen di jël di leen fa teg di leen ngeen fay ñu jox leen seen lekk wala fu ngeen nekk ci kër ngay nekk Hmm.
ci kër ngay nekk parce que boo jógee Sénégal boo demee Burkina am na coxeur
te sooy ñooy seen kër ngeen nekk waaw boo demee ci coxeur yi ci seen kër ngay nekk mais jàpp yi may dégg ñu koy jàpp ñaare sénégalais bi ñu jàpp ko muy woote fii di ndax nañ ma fayal nangam loolu police lay jàpp wala lu mu demee noonu non ñooñu asma booy ñoo lay jàpp asma booy ñoom bande yi bande la ñuy wax asma booy asma booy yi ñoo lay jàpp libi ñoo lay jaay affaire yooyu yëpp asma booy ñoo koy def waaw ñoom ñoo ñoo lay jàpp jaay la jaay la police yi waaw parce que ni ñu lay jaayee mooy non duñ la jaay policiers yi ñoom seen biir lañ lay jaayante
mais fi ñu lay tëj ngay woote sénégalais yooyu kon nekk police non prison lay doon seen prison yi doon ñoom non prison mi ngi mel tey nga nekk yor nekk sa kër yor benn chambre waaw xam naa li nga wax voilà boo jàppee kenn boo ñëwee foofu nga koy tëj foofu lañ lay tëj te doon du doon chambre yu ndaw nga ni bâtiment lay doon foofu lañ lay tëj jox la téléphone fo maanaam xeet boo doon boo demee di nga fa fekk xeet bu mel noonu boo xam ne ñooñu lañ lay booleel da ngay gis ku ñu fa jàpp mu nekk sénégalais boo ñëwee sénégalais lañ lay booleel comme yow naar bee wax ak moom ni ko demal wax ko nangam mu ñëw ni la booy dañ laa jaay naar bi mi ngi la jëndee deux cent mille il faut que nga woo sa famille ñu envoyé quatre cent mille pour naar bi libéré la nga dellu sa campus léegi dañ lay jox téléphone ñoom ñoo lay jox téléphone ni la wóoree sa famille ñu dugal temps de xaalis ñu libéré la sa ñu woo sa coxeur mu ñëw jël la léegi xaalis boobu boo ko dugalee boo dugalee quatre cent mille yi léegi ñoom dañ lay gé dañuy woo sa coxeur ni ko léegi ñi ngi sa benn jamaa ñoom maanaam sa client jamaa lañ koy wax. ñu ni ko ñi ngi sa benn jamaa léegi dañ ko jàppoon mais fay na. léegi indi xaalis bi ñëw jël ko wala nga xam fan la ñuy daje ñu indi la ko nga fàññi suñu xaalis ñu dem
nga xam ne yow léegi euh, soo fayee ñu bàyyi la waaw mais mbaa boo fayaatee ñoom mbéy yi duñu toppat jàpp la non jàpp bi du jaageen dañ lay topp di la jàpp li ñu lay jàppee tey exemple parce que ñun dañ daan liggéey man bi may nekk lii dama daan liggéey mais da- am na ci ñun ci ñoo xamante ne bii mas nañ dem liggéey ñu jàpp leen kalabus leen kalabus mooy ñu jàpp leen tëj leen bi ñu leen jàppee ñu- kenn ñenn ñi dañ leen a jaay mais mujj ñu jar ñu bàyyi leen ñibbisiwaat mais ñi nga xam ne parce que mi ngi jàppoon plus de huit personnes naar bi yorul xaalis ba mu jëndee huit personnes yi. léegi mu jënd euh, six cinq personnes yi bàyyi bàyyi trois ñibbisi waaw.
naar bi ñooñu muy jënd pour la tax man leen jënd waaw li mu lay jëndee mooy affaire business la par exemple tey ñu àndoon man ak yow fee ñu fekk ma ñaari xale ma jël xale yi ñëw yow mi yor prison man yoruma prison ma ne la kaay ma jaay la ñii dama leen a jàpp nga ne ma loo ko jaayee ma ne la cent mille ma fay la sa cent mille nga dem léegi man dese xale yi man leen booy dama leen di jënd cent mille laa leen jëndee léegi deux cent mille ngeen di dugal pour ma bàyyi leen ngeen ñibbiwaat te boo euh, te boo xaalis bi feeg ñëwul dañ lay dóor chaque jour dañ lay dóor.
ba yaakaar ne dóor yi moom nañuy wax rek non dóor yi lu am la waaw parce que am na ku ñu nekkaloon benn booy bu ñuy wax mbiyaa dañ ko dóoroon ba ginnaawam gi sax dafa mujj dagg waaw ginnaawam gi da ngay gis prison bu ñu mujjee nekk da ngay xool ginnaawam gi mu lépp def ay góom
jërëjëf mbokk yi ànd ak rajo benn FM 106.0 Euh, seen émission immigré yi tey ñu waxtaanee lu jëm ci wàllu tukki mi nga xam ne ñu ngi koy def te jaruñu ko ci anam bi nga xam ne moo jaadu sëñ Abdoulaye Ndiaye mi ngi ci daal mu nekk sunu gan moom bokkoon na ci ñi nga xam ne mas na génn demoon ci gaal yi ba jotoon na dem ci frontière Espagne ba nga xam ne daanaka duggoon na Italie ci lañ leen wàññee ngir ginnaaw bi nga xam ne am nañ jafe-jafe foofu dégg nañu ni mu ñu leeralee yoon wi kon yaakaar naa gis nañ ne kon tukki mi jafe-jafe kese la làmboo waaye kiy jóg di bootu saagam gi di génne kër yi way juróom di dem jafe-jafe boobu xaj na du ko xam waaye xaj na du ko gis li muy gis rek mooy dem Italie tukki kon euh, ngir ñu xam ne it tukki du caagi ne rek euh, gaal yi jaar di tukki mooy yoon wi ñu war a jaar yoon boobu mooy yoon bi nga xam ne du yoon bi anam bi nga xam ne jaadu na anam bi nga xam ne nag moom nga mën a jaar de mooy nga dem déposé def déposement ci say kayit ñaani 800 ñu may la 800 nga tukki Euh, loolu it euh, sëñ Abdoulaye bëggoon na maa ñu dugg ci loolu yow lan moo la xiroon ci nga dugg ci gaal gi ndax boobu da ngaa mënutoo dem ñaani 800 am capital bi nga yoroon mën la war a may nga dem di ñaan di wuti 800 yooyu.
non booba capital bi ma yor euh, peut-être man mën na ma permettre ma dem ñaan visa mais pour l'instant bi ma koy def xaw ma woon lu bare bare bare parce que euh, comme li ma la wax euh, bi may commencé pare nañu ci dem ñoo xam ne ñàkk xam ma leen ci dugal waaw pare nañu ci dem ñoo xamante ne ñàkk xam li ci nekk ak ñàkk xam problème mu këyit ni mu demee moo bare na ñoo xam ne loolu moo leen ciy dugal parce que man mosuma dem di déposer visa
mais yow la bi ngay bi ngay bi ngay jóge fii di dem booba da nga am ñoo ju ko ko ko dem ba yegg wala wala.
non bare na ñoo xamante ne bii nii ñoo bokkoon ñoo ñoo xam ne dama doon déggante ak ñoom foofu lañ jaar ba àgg waaw mais ñoom est-ce que bi ñu lay woo doon nañ la wax ne la réew mi yoon wi di kii rek waxoon nañ la ko.
wax nañ ma lépp Hmm.
wax nañ ma li ci nekkoon lépp mais booba taxul ma am dégg-dégg bi waaw parce que booba euh, taxul ma am dégg-dégg parce que booba am na fu ma tegoon sama bët te li ñu naan euh, jaane pax loxo di ko dund moo ci nekk fii ak dew ma woon ba xam la fa nekk mënu moon a gëm ni loolu am na fa mais yoon bi luñ la ci wax rek am na lu ci des barki sëriñ Sall luñ la wax ci yoon bi am na lu ci des waaw parce que ñun prison bi ñu jàppee ci ndox mi indiwaa ni biir Libye prison bi ñu tëjoon 2000 personnes moo ci nekk biir prison bi ñu tëjoon rek biir prison bi ñaari junni nit daan leen jox lekk yëpp lekk bi du demee noonu 24 heures ngay am doo ko lekk te li ñu lay jox doo ko lekk doo ko bëgg
te loolu amuñu fa gaañu bien sûr da ngay xëy tëdd ak nit 2 jours 3 jours nga xëy mu dof
ci biir barki Sëriñ Saaliw du jeex mais yéen booba yéen nan ngeen def yéen ñi nga xam ne ay Sénégalais ngeen di nekk fa mais ñun sénégalais yi yàlla dañoo dimbali loolu moom na ko àdduna xam ñun yàlla ñu dimbali même désert bi li muy métti métti métti lu muy lu ñuy mar mar mar mar pour nga gis sénégalais bu dem ba décédé ci désert bi non barewul parce que am nañ maîtrise boo xamante ne mar bi mën na leen a bañ a sonal loolu parce que ñun xam nañu woor nigériens yi da ngay toog ak nigériens léegi jox ko mu naan ba maane plus de 30 minutes mu ñaan la ndox soo ko mayul mu xam say tànk boo ko bàyyee mu dee barke Sëriñ Tuubaa mënuñu ko gérer man yëg naa ci oto bi oto biy daw dugg nañ ci benn tàngoor boo xam ni dama xëm spécial ci oto bi ba dellu si waat sama bopp te ñi ma toogaloon sax xam na xamuñu ni xam na man bi ma nee xefeet yem ci oto bi muy daw dama jaaxle parce que boobu tàngoor bi fi nekk kenn mu laa wax nu mu toll booy dem maanaam boo jógee ak des ni lii bi laaj dem rek ñi nga xam ne ñoo fa nekk kusoor yi nga xam ne ñoo fa nekk liñ lay wax def ko rek da ngay xam ne fii nga jëm yow àdduna bu tukki la da nga naa la jëndal gant nga jënd gant jëndal protège nga jënd protège pour sa kanam bi jënd protège pour sa bakkan sa nooyi bi jënd ay kawas boo amul ay ferme dañ lay jëndaloo ay ferme ngir tàngoor bi fi nekk
nga xam ne tàngoor bi moom warut a kii tàngoor bi la ñuy bañ mu yàq sa yaram bi parce que tàngoor bi kenn mun laa wax nu mu toll ñun am nañ 48 heures ci naaj bi pour toog waxuma la oto bi daw de naar bi dem nañ ba ci digg àll bi daw 3 jours. àgguñu naar bi bàyyi ñu foofu taal benn oto bi ànd ak moroom di dem bàyyi ñu fa 48 heures ñu toog ci naaj bi amul kër amul dara.
Eh, jërëjëf sëñ Abdoulaye Ndiaye ñuy fàttali bokk yi kon seen rajo Benno FM 106.0 ngeen di àndal eh, ci seen émission bi ñu jagleel immigré yi tey ñuy waxtaane lu jëm ci wàllu tukki mi nga xam ne ñu ngi koy def te di ko jaar ci anam bi nga xam ne jaaruwul xam naa eh, sëñ Abdoulaye toll nga ci tomb bu am solo ndax ñoo ngi nag Libi nga xam ne yéen foofu nag fi la fi ngeen war a di embarquer nag wuti Italie wala Espagne. foofu xam naa incha allah danañ ci ñëw waaye ñu am tuuti élément bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu déglu. bu ko defee daal di tàbbi nag ci loolu nga xamante ne bi mooy diggante Libi nag ba ba ngay dem ci diggante foofu ni ngeen di jëlee gaal gi. ak fi ngeen di jaar ba jël gaal gi ak jafe-jafe yi nga xam ne dana am foofu yëpp. loolu incha allah bëgg nañ cee dugg waaye xam naa rek laataa ñuy tàbbi ci foofu rek. danañ am tuuti élément bu ñu teewlu bu ko defee moom danañu am lu ñu fàttali ci wàllu tukki mi nga xam ne ñu ngi koy def te di ko defee ci anam bi nga xam ne jaaduwul bu ko defee kon xam naa rek dañ ci am benn élément boo xam ne wala ñaar boo xaay danañ ko ci teglu ñoom danañ ñu waxtaan danañ ñu fàttali ci tukki mi wala ñu fàttali ñu jafe-jafe yi nga xaay tukki mi am na ko loolu lépp rek li tax ñu di ko waxtaanee rek mooy bëgg askan wi ñoom it ñu yeewuwaat bu baax a baax ci tukki bi nga xam ne am na te dañ koy def ci anam bi nga xam ne jaaduwut ngir suñu bokki suñu bokki Sénégal yi ñoom it ñu gën a jaajuwaat gën a yeewuwaat ndax yaakaar naa tey li sëñ Abdoulaye Ndiaye wax ci réew mi Sénégal bi nga xam ne daa jóge fii dem tukki yaakaar naa kenn ku nekk xam ne ne bu fekkente ne dafa jaar ci aram bi nga xam ne mooy aram bi jaadu xaj na jafe-jafe bii sëñ Abdoulaye Ndiaye wax mën nga ko muy dund waaye li gën a yéeme mooy nit ki nga xamante ne bii xaj na daa bëgg a tukki waaye xaj na li muy bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg tukki lépp maanaam xaj na war naa xool li muy wuti nan lay def ba am ko waaye nan lay def ba am ko mooy fi muy jaar. war na ko war na ko bàyyi xel war na ko segg xam yoon bi muy jaar yoon bu anam la bu jaar la wala bu jaarewut ndax ñaare tey am na benn capital boo xam ne boo ko amee tey bëgg a jaar ci yoon suuf yi ñu lay laaj ay vingt mille di laaj ay quinze mille ay cinq mille ay dix mille ak say ak loo war a lekk yooyu tey boo calculé ne boo jëmoon a dem li gën ci huit cent mën naa am nga am ko tukki ba ki topp boo mënta am huit cent it nga toog te la nga doon liggéey ba yàlla dogal nga mën a génn réew mi kon ñu déglu élément bi.
man la Mor nekk dëkk bu ñuy wax ba di jëng Sénégal sunu Sénégal la te bu nu màngee bàyyi ko fi du nu am lañu bëgg ci sunu réew. ndax benn Sénégal dañoo war a toog benn chance bi ci nekk ci toog ci Sénégal mooy di nga mën a yar sa njaboot éduquer leen ba li nga bëgg ci ñoom nga am ko. tey jii bari na fi ñoo xamante ni yaa ngi génn di dem conséquences yi nga xamante ni mi ngi dal sa njaboot loolu li ko li ko indi mooy sori bi nga sori sa njaboot te tey bu fekkoon yaa ngi toog ak sa njaboot yu ci bari di nga leen ca mën a génne ndax kër soo ko bàyyee jigéen ak xale yaakaar naa ni lu bari fay yu bari dana fa dox ndax jigéen dëgg la ñooñu jur ñooy suñuy waajur ñooñu ñoom la ñuy bàyyi ci kër gi wante am na benn moment boo xamante ni dañuy dem ba ñoom li nga xamante ni mooy seen warugar dëgg dëgg dëgg daf koy dañ dañ koy dañ koy dañ koy fàtte dañ koy fàtte ndax yar xale yi dafa bokk ci seen ci ci seen mission kon ñun góor ñi nga xamante ni tey ñu ñoo war defar Sénégal loolu bokk na ci faute yi nga xamante ni mi ngi ñuy dal ñun ñi nga xamante ni ñu ngi bàyyi Séné Sénégal dem ca bitim réew ba ca des mooy Séné Sénégal il faut que ñu xam ni li fi nekk amul feneen ndax Sénégal goo xamante ni am nañ fi suuf boo xamante ni tey espace yi am Sénégal suñ ko utiliser dootuñu soxla jëggaani lenn loo xamante ni mi ngi jëm ci lu ñuy bay tey dugal ci àll bi ñaata surface ñoo fa nekk ay centaine de hectares. pour ñu mën koo defar il faut ñu dem foofa sur la base bënn fa ay teen organiser wu former xale yi yóbbu leen foofu ñu dem bay te pourtant dañuy wax ni est-ce que loolu mën naa nekk mën naa nekk sii mën naa nekk gëm-gëm la gëmloo ko xale yi nag gunge leen.
gunge leen ci daf cee baax daf cee baax gëmloo ko xale yi mooy ah ñun kat kaay leen yéen xale yi bu nu demee képp koo xamante ni dëkk nga ci te dëkk dëkk nga ci dëkk sàngam fexeel ba delluwaat fa boo delluwaatee demal danaa la booleeg maire ba fa nekk boo demee ca maire ba présenté wul mu jël say filiation yépp am na lu ñuy préparé li ñuy préparé mooy képp koo xamante ni bëgg ngaa bay ñëwal boo ñëwee bu boobaa dinañ la jox foo bayee jox la foo foo foo foo foo foo mën a liggéeyee.
nekk lu am solo rawatina sax wax nga ko léeg-léeg nit nga dëkk ci gox bëgg fa nekk bitim réew ba benn période nga bëgg a ñibbi si bëgg fa investir waaye doo xam fan ngay jaar.
waaw loolu am pagaay fi mu ne nii ñun dañu dëkk ci côté boo xamante ni dafa bari ay nekk ñu nekk ci àll bi te tey ak lañ fay def nun lu tuuti tuuti teg nañ ci seen bët ba ñoom ñëpp fi mu ne nii ñoo ngi bëgg a dellu si pour mën a investir foofa ñooñu nag il faut ñu jàppale leen ni leen di jàppalee mooy yow da nga daan bay avant ngay dem say waajur yépp mbay la ñu xam boo ñëwee pour ñu jàppale la dina yomb ni ñu lay jàppalee mooy xëy na am na ci xaaj bi ñoo xamante ni ci man ci côté bi ma dëkkee laay waxee quoi daan nañ bay sax bayum ndër ñooñu bu ñu dellu siwaatee dana yomb ci ñoom parce que xamoon nañ ko avant ñuy dem organiser leen moo ci des ak it ñu am ndox moo xamante ni dinañ ci mën a mbay te yaakaar naa ni loolu su amee bu soobee yàlla ñoom ñi nga xam te ñooy investir bu soobee yàlla dinañ leen mën a jàppale ba investir yooyu ñuy def ñu teg leen ci ay yoon moo xam nag ci domaine bu ñu bëgg domaine bu ñu bëgg parce que kenn ku ci nekk la nga bëgg a investir yaa xam ci ban domaine laa bëgg a investir bu dee ci wàllu mbay mi wax nga ko.
jërëjëf yaakaar naa sëñ Ablaye dégg nga kii li mu wax. mel na ne Sénégal kon doomu réewam dañoo gëmul seen réew. yaakaar naa nañ déglu élément bi ci topp.
2002 laa jóge Abidjan dem France ma jóge France dem Italie bon def naa fa trois mois yu métti lool nag trois mois yooyu bon aw ma këyit maa ngi door a ñëw déggaguma làkk bi sedd bi aussi métti na en plus comme man yàlla dogal na dem naa si suma ci kenn ku ma mën a dimbali ma ne lu métti métti naa jéem a jéemu mais vraiment ma ne képp man découragé naa par rapport ak li may dégg naan Europe Europe parce que bon boo xëyee sa baax di jaay da ngay dàqante gars yi ba ngoon jot seede daa doon jaay jamono yooyu da doon jaay boloñ da doon jaay rimini ci géej gi da ngay dem ba am fond ñu jàpp ji sa bras un voie deux trois nga jeexal tàkk nekk en zéro Europe ña fa ne ñëpp ku ne ak la ngay liggéey ku ne ak la ngay yëngu loolu rek mooy waral nit toog situation ba yàgg mu xool ne kii am na xaalis man maa war a am xaalis jaay sama place du adduna du noonu mën ngaa jaay sa place dem ba Europe doo am dara
kon xam naa ne loolu rek sëñ Ablaye. kon mel na ne kon ki ne Sénégal. li mu yor war na koo gëm. tey booy liggéey ba am 500000. nga xëy xëy xëy fexe ba sa 500000 yooyu nga takkate ko ba mu nekk benn say. nga def ko sa poos ne maa ngi ar aw yoonu bitim réew tukki. foo aw ci ay oto ngay jaar ay gaal ngay bëgg a jaar. ba dem Europe kon benn yaa ngi woon ginnaaw loo xam ne mën naa am nga da nga départ dellusiwaat ci te xañ ne dellusiwaat ba nga ciy dellusiwaat du gën loolu it yaakaar naa élément boobu noonu noonu ci mën a andil ci jàngat ci nit ki nga xam ne daan nañ Sénégal di liggéey nan la war a def ba xelam mu def ko ci liggéey bi muy liggéey ci Sénégal bañ koo def rek ci bu ma jaarut ci xam ma barson la ñu wax wala bar sax su ma jaarut su ma su ma mënta am visa it naa jaar ci gaal gi lu ma ci jëlee lu ma ci góobe gar ko waaw waaw loolu it ba tey dinaa ci ñëw parce que lu ma ci góobe gar ko moom maanaam du solution li tax du solution mooy man sama bopp laa ko xamee parce que bi may jóge Sénégal booba wute na ak léegi parce que booba mënaloon naa sama bopp lu bari parce que booba liggéey naa dajale na sama xaalis près de ay un million quelque ma tag ko teg ngir rek dem booba xalaatuma ci woon dara mais xel mi ma yor tey bokkul woon ak xel mi ma yoroon parce que bi ma ñëwaatee Sénégal pour ma amaat liggéey bi ma doon liggéey par rapport ak bi ma nekk léegi parce que ni mu demee woon bu njëkk demeetu ko. parce que dama mën loon sama bopp lu bari. en tout cas mais depuis bi ma ñëwaatee Sénégal ba léegi. alhamdulilah quoi ñu ngi sant mais wute na ak bi ma fi nekk avant ma fi jóge mais képp ku ci yor.
maanaam nga ne bi ngay bi ngay bi ngay ne Sénégal di liggéey. yow yaa liggéey ba to- liggéeyal tool na ci dan naka.
bi may dem bi may jël yoon bi takk naa un million teg. waaw
bi ngay dem bi may dem.
mais bi nga demee ba yàlla dogal eggo bi nga del siwaat liggéey boobu nga kon newaat waaw parce que man chauffeur la dama yoroon oto di dem ci luuma yi. di ñëw mais place boobu bi ma ñëwaatee dama ko perte. parce que ki ma yorloon oto maa ko jàngal oto ba mu am permis ma bàyyee ko oto bi doog a dem. waaw
mais ni ni nga defoon ba liggéey loolu bi nga dikkaatee liggéey bi ak ak ak bi nga bu njëkkoon ak léegi xam nga ne kon rëccu am na bien sûr réccu am na parce que ñun dama jëlale perte xaalis bi perte mais temps ba nga fay def rek ak coono ya nga fay daj maanaam dee moom da nga koy jéggi di jéggi di jéggi désert bi da ngay romb pili di ay cent de personnes yu dee ci àll bi mais yow tukki bi far moo ci gën a garaaw foo xam ne tey jàpp nga ne Sénégal yu bari fa lañ jot fa lañ fa lañ faatoo daal ndax yow nee nga ñëw nga Libi bi nga dikkee Libi bëgg nañu départ Libi ak Italie foofu it am na jafe-jafe ndax gaal yi gaal yu enregistré la wala gaal yu ñuy air la wala foofu it jafe-jafe amul ci biir ndox mi wala kii capitaine bi bu gëlëmee wala bu réeree benn bi topp fi nga xam ne fi ngeen war a dem ñu war leen faa gàttandoo it foofu it jàpp ne am na jafe-jafe yu bari yoo xam ne Sénégal yu bari foofu la ñu dese yoon bi lépp jafe-jafe la bari nañu dee ñëpp ci désert bi lañ dee avant nga àgg Libi désert bi li fiy dee da ngay romb oto bu paan fi mu paan ay oto rek ñoo fay jaar oto fay jaar dem Libi te amul yoon amul benn yoon boo xam ne da nga naan yoon bi moo jëm Libi amul àll bi rek ngeen jaar ay CPS la ñuy yor rek topp CPS bi di tourner di tourner parce que ñun daw nañ trois jours oto ba ñu njëkkoon a dugg dafa paan bi ñu départaatee oto bi ñu doon yóbbuwaat dafa paan oto bi mi ngi paan biite biite la oto bi paan ñu toog ma xalaat la ma daloon bu njëkk suñ première voyage ni ñu sonnee woon.
koy dem nga ñaari yoon dem naa ñaari yoon dem nga ba Libi dañu dëpp la non bi njëkk bi àgg ñu libi dañoo dem ba jub libi oto bi paan ñu wàññeekuwaat.
ñëwaat Sénégal ñëwaat Akades.
Akades.
non Akades lañ ñëwaat départ waat Akades wutuwaat libi oto bi paanaat biite bi ñu paanee biite plus de vingt cinq personnes. mu engagé wu ni ko man mécanicien laa moo ko naar bi. naar bi ni moom mécanicien nga ma ne ko waaw. naar bi génneel ma kele yi génneel ma biite bi ak plateau bi ak digse bi ma reculer boîte bi. mu reculer boîte bi fekk am na benn nitéré bu fa nekk boo xamante ne bii daan na yëngu ci oto mu jàppale ma ma reculer boîte bi dindi digsi ak plateau bi monté waat biite bi ma jox ak digsi ak plateau bi ñu pare oto bi amul embrayage ñu ma wekk met bi sol ko mais lim am doyut am na mais lim am doyut te naar bi mënut a dawalee oto bi noonu ma ne ko léegi indi ma dawal naar bi jox ma oto bi man ni booy yi yëg leen ñu yéeg ñi nga xam ne ay góor lañ ma leen puus leen ma may leen ma lox ñu puus ma ma def oto bi vitesse taal ko mu dem ma taalee oto bi vitesse oto bi raam ndànk ma leen yéeg leen ñu yéeg ñu départ tam na ay jigéen ñi nekk am na ay jigéen mais xanaa jigéen ñi bàyyiwul ay doom non da ngay gis jigéen yoo xam ne day yor ñaari doom wala ñett ñun am nañ bi ñu jógee Libi am nañ ku ñu bokkaloon ku ñu bokkaloon oto mais ñu- ay oto la quoi ay 4 pick-up la woon 4 oto Toyota am na ci koo xamante ne bii liir bi mu yor 6 mois la am.
te booba ci ci day tukki waaw six mois la am yor na ñaari doom ak liir bi mu yor bi yor bi nga xam ne six mois la am mais moom doom yi est-ce que nañ loolu loolu luy loolu it xam nga jaay sa bakkan la wante sa yoon bi mag ñi sax laa la wax képp ku ci jaar mais yéen bi ngeen demee fu ngeen paan war a dox ay doom yow ni ngi def
non ñoom ñoom seen oto paanut parce que ñun bokku ñoon oto man ak moom oto yi ñoo àndandoo woon suñu oto paan na mais ñoom oto bi mu yëgoon paanut ñoom dañoo continuer bàyyi ñu fu ñu ni paan ñoom dañoo continuer dem waaw
Eh, jërëjëf xam naa mbokk yi mën ngeen a jaar ci 88 628 19 02 88 628 19 02 seen rajo Benno FM 106 point 0 ngeen di teewlu kàddu gi bàyyi ko fii ci rond-point bi dana ak mairie bu Touba eh, xale yi dëgmal jëm ci garage bu bees bi seen émission immigré yi ñuy waxtaane tey lu jëm ci wàllu tukki bi nga xam ne ñu ngi koy def te defuñu ko ci anam bi nga xam ne mooy anam bi jaadu moo waral tey ñu koy waxtaane ngir eh, mbokk yi nga xamante ni bii. ñu ngi wétli ko rajo Benno FM 106.0 ñoom it ñu mën a yeewal askan wi ci ñi nga xam ne ñi ngi dem ñu xam ne yoon wi ñuy jaar ngir tukki daal awuñu ci yoon bi nga xam ne mooy yoon bi nga xam ne moo jaadu waaye mbokk bi yi nga xam ne nag jot nañu cee jaar bu ñu dellusiwaatee nag ci suñu réew mën a wax ak suñu askan xamal leen nag réew mi ne leen xamal leen li ne ci yoon wi ngir xam ne rek ñi nga xam ne seeni xel ba nag ne génnul toon ci jaar ci gaal yi ñoom ñu xam ne gaal yi daal du anam bi nga xam ne mooy anam bi jaadu ngir tukki loolu nag yaakaar naa moo waral tey ñu dalal sëñ Abdoulaye Ndiaye mbokk yi ne ci bitti ñoom it ñu mën leen a andil seen xalaat ci 88 628 19 02 88 628 19 02 moom ngeen di jaar bu ko defee da ngeen mën a andi yéen it seen i seere ci li nga xam ne ñu ngi koy waxtaanee su ko defee xam naa incha allah sëñ Abdoulaye danañ àndaat ak beneen élément boo xam ne moom it danañu ñëwal ci li jëm ci wàll woowu nga xamante ni bi tey yaakaar naa gis nañu réew mi ni mu mel ñi nga xamante ne bi ñi ngi tukki waaye gis nañ ñi nga xamante ne bi xaj na dem nañ ba ñëw ak ñi nga xam ne seen xel ne na ci dem ak ñi nga xam ne ñoo di askan wi kenn ku nekk am part ci waxtaan woowu nga xam ne dañ ci mën a indi seen xalaat ñu dégluwaat benn élément bi nga xam ne moom it danañu indi leen lu jëm ci wàll yu bokk ci tukki mi nga xaaj ñu ngi koy def te def nañ ko ci anam bi jaadu ba ci topp it ñi nga xam ne ñi ngi teewlu rajo bi mën nañu jaar ci 88 628 19 02 88 628 19 02 ci ngeen di jaar mooy bu mu jokkoo bi ak Benno FM 106 point 0 kaddu gi bàyyi ko fii ci rond point bi dana ak mairie bu Touba xale bi dëgmal jëm ci garage bu bees bi seen mbokk Mourou Makhtar Diop ci wàllu présentation bi ngeen ànd ak Benno FM 106 point 0 xam naa élément bi ñu ngi koy xaarandi rek mu mën noo ñëwal ci lépp loo xam ne jëm na ci tukki bi nga xam ne am na te jaaruñu ko ci aram bi nga xamante ne bi mooy aram bi jaadu loolu it yaakaar naa gis nañu ne c'est ñoom à faire quelque chose à venir même en Afrique et surtout boo xoolee Sénégal européen yi ñu commencé di bari ça veut dire ñoom day ñëw pour tâter le terrain pour voir xam nañu ne aussi euh, le futur c'est pratiquement l'Afrique l'avenir c'est l'Afrique te histoire boo comprendre un peu l'histoire des Italiens Palmyre Eh, nañ jël mbokk mi yëglu ba noppi 88 628 19 02 88 628 19 02 mooy bu mu jokkoo bi eh, ki yëglu rek xam naa bu fekkee ne jàppandi na mën nañ ko jël ba noppi soo ko delluwaat ci waxtaan wi 88 628 19 02 88 628 19 02 mooy bu mu jokkoo bi yéen i nga ànd ak Benno FM 106 point 0 mbokk moomu egsiwul waaye rek mën na xaar mën nañ ko xaarandiwaat ci 88 628 19 02 88 628 19 02 mooy bu mu jokkoo bi ak seen rajo Benno FM kooku rëcci na waaye ñu ngi koy néggandikuwaat ci 88 628 19 02 88 628 19 02 moom ngeen di jaar eh, 88 628 19 02 88 628 19 02 seen rajo Benno FM 106 point 0
daanaka demoon naa ba xaw cee sori mais daal lay la xam doy na daal parce que dem naa ba nekkul ne man rek maa waroon a dem am na beneen copain bu ma waroon a àndal parce que moom it euh, mën naa ne sax maa ko tane woon quoi jàppoon naa si dara mais moom jàppul si dara te yàlla may na ko soxna muy sama waay man sama bopp jot naa cee dugal un million heureusement sama ñaq la waaw demuma si kenn lebi ko sama xaalis laa si dugal bi may ñibbi si fii yére indiwuma ko sama carte d'identité indiwuma indiwuma benn pièce fii laa ñëw doogal di jënd ak pièce copain moom ba léegi moom yorul benn kayit billet bi ñu jëkk a daggaloo doomu trois cent seize mille la dañ ma signaloo rek jeex na tar versé ku bëgg rek nax da lay yomb kooku moom ñàkk na deux millions ba léegi malheureusement daf may woo parce que loolu mu ñàkk noonu nekkul ne moom moo ko def borom moo ko def visa bi dañ ma ko signalé woon rek ma signé gaañ bi signé ñu ne ñu nag léegi seen contrat deux ans lay doon parce que loolu ma la wax noonu ñi ma nekkal sax xam mosuñoo xam ne denc naa lu toll noonu waaw mais loolu yëpp bëgg a tekki la rek dama yaakaar ne un bon jour rek ma def ñu gis lépp ngir teraanga rek bi yàlla defee noonu man dama ànd ak sama sago waaw ànd ak ngëm te xam ne lu ma xañ loolu mën na maa may leneen
dégg nga kooku moom it.
Mhm.
yaakaar naa kon eh, bëgg nañu xamit bi ngeen nekkee Libye diggante Libye foofu ak ngeen di embarqué ci gaal gi foofu dañu la doon fay wala fayu leen.
waaw foofu da ngay fay. Mm, comme diggante Acades ak Libye rek. foo dem da ngay fay. foo dem rek da ngay fay.
mais eh, dafa am coxeur yoo xam ne bokkut ak coxeur yi ngeen jógee yoo xam ne ñoo nekk diggante Libye pour war leen a jàll ci gaal gi ñooñu bu ngeen dikkee ñoo leen yóbbu seen i kër wala.
waaw ñoo ñoo lay yóbbu ci seen kër. Saaro ñun fi ñu nekkoon mi ngi mel na nga jógee Mbacke Mbacary ak Mbacary Tirpoli nga nekk Ndula doo nekk ci biir dëkk bi dañuy tabax ay kër ci àll bi foofu ngay dem ñoom dañuy lëkkaloo ak naar yi léegi naar yi ñoom ñooy puus gaal yi parce que foofu nit ku ñuul du puus gaal naar yi ñooy puus gaal yi ñoom ñun ñoo leen di fay bi leen fayee ñoom ñu dem fay naar yi naar yi jël oto yi ñëw yem ni ni yóbbu leen ci gaal yi te gaal gi pomp gaal gi ba pare ñun ñun ñooy jàppoo gaal gi dugal ci biir ndox mi ñu doog a ran doog a yéeg ci gaal gi
nga xam ne bu ngeen war bu ñu ko pompé ba noppi kenn ku ne maanaam buy dugg da ngeen di ra da ngeen raganoo par kenn di yëg.
waaw dañuy rangloo par kenn di yéeg sànne paa ji gaal yi am na ñoo xam ne suñ paree rek dañ naan gaal bi pare na yéeg leen ngeen njëkkante daw yéeg plus de 140 personnes
mais loolu est-ce que xalaatu ne eh, mën naa am eh, eh, jafe-jafe ci biir ndox mi.
waaw parce que da ci am parce que da ngay pousse gaal ba pare parce que ñun amoon nañ suñ benn gaal boo xamante ne bii nii gaal boobu mujjul àgg
mais gaal bi mi ngi defoon 140 personnes mais li ci mucc matu sax 100 matu sax matu sax 60 personnes li mucc ci gaal bi matu sax 60 personnes li ci des lépp ci ndox bi lay des maanaam gaal bi ñaata nit ci nekkoon.
gaal bi 140 personnes lay am.
140 personnes.
waaw li ci mucc matu 60 personnes te mu mujj dem.
mujjul dem pousse nañ suñu campus beneen beneen gaal boo xamante ne bii nii gaal bi li ci dee ëpp na 10 personnes ci diggante gaal gi ak bato bi mais yéen biir gaal gi da ngeen di yor seen i saak yor seen i bagage wala non biir gaal gi door dara
maanaam booy wàcc ci réew mi doo yor dara déedéet dara doo ko yor mais téléphone yi nga yoroon di ci yooyu da nga ko mën a yor moom loolu téléphone yi li mu lay yor li mu lay yem am na ñoo xam ne nag danañ coller seen téléphone fexe ba jàll ak moom mais man téléphone ma yoroon li bi laa ko joxe
nga xam ne yéen coxeur yooyu moom ngeen jox seen téléphone wala seen bagage yeeg waaw boo man bi ma fay jóge bi may déparé Libye di dem Ita di dem pour ñu pousse gaal dem Italie li ma yoroon ci xaalis rek dafa bari parce que man maa ngi doon liggéey ak benn naar naar bi ma doon liggéeyal ñi vulcanisateur laa fa doon def maanaam pono conteneur yi ñuy wàccee bu ñëwee moom lañ doon décorté pono bu nekk un dinar lañ ñu lañ ma daan fay te pono yi euh, ensemble bu nekk quatre pono lay def nga dindi quatre pono yi pono bu nekk un dinar parce que dama daan wàcc yor ay 3000 dinar wala 4000 dinar
nga xam ne yow xaalis bi nga jëloon Sénégal bokkut ak bi nga liggéeyaat foofu non non non non non. parce que man li ma fa bàyyi ci xaalis bi ma ko calculé su ma ko weccoo ko woon rek presque dana mat ay 800000.
foo ko bàyyi yow waaw lii bi laa ko bàyyi parce que bi ñuy dem xaalis boobu mënu ma ko yóbbu te amoon naa fa benn booy boo xamante ne bii eh, sama booy la ñoo daan ànd mais boobu moom xaalis bu mu fayee amagul boobu mënul dugg ci gaal bi parce que ñun gaal bi ñu duggoon ñun dañoo dañoo fayaloon ci beneen gaal mais gaal googu dañ koy yéex a puus léegi ñu fay puus beneen gaal ñu yëkkal suñu xaalis fay ci gaal boobu ñun pour dem Italie mais diggante boobu ñaata ngeen di fay xaalis diggante boobu parce que ñun bi ñuy fay naar bi ñoom naar bu ñu xasee ba teg gaal loo am ñoom ñu yóbbu la.
Hmm?
waaw naar bu ñu xas bay teg gaal loo am yóbbu la parce que dañuy sàcc ay nit di ci dugal léegi yow mi nga xam ne dañ lay sàcc pour dugal la ci gaal gi bool la ci gaal bi loo fay ñu yóbbu la
xaalis cinquante mille sama naa la yóbbu loo yor ñu yóbbu la parce que man yaakaar naa li ma fay naar moru cinquante mille parce que joxuma ko sax cinquante dinaar
te yéen bi ngeen bi ngeen di dem eh, seen bagage yi ngeen si bàyyi woon yooyu est-ce que bi ngeen départé man jox ngeen ci yi ñu bàyyi woon ci campus bi.
Hmm.
ñun jëriñoo ñëwaat ci campus bi.
lu lu leen bi indi ñu jàppee ci camp bi la ñu yóbbu camp bi ñu reflet fa la ñu yóbbu
ah camp bi nekk la Libye la leen yóbbu camp bi la ñu yóbbu ti camp bi da ngay am vingt quatre heures doo lekk tey boo lekkee tey ci midi suba ci midi ngay lekkaat ndox bi ñu lay jox ñemoo ko sangoo sax ba koy naan
Hmm?
ndox bi togg bi day wex xorom ba dañ lay jox togg bi ndox sase yi ñuy tuuse soo amee ci ndox sase yi da nga koy defaat ci togg bi raxas ko macaron la ñuy togg da ngay raxasaan macaron bi ci ndox sase bi ba xorom bi wàññi ko nga dog cee mën a lekk loo toggee
mais yéen eh, xanaa foofu yàggu leen fu ñu andi leen Sénégal ah ah yàggu leen fu ñu andi leen Sénégal ankay parce que fi ñu njëkk a nekk. parce que ay ay ay pri bi ñu la jàppee ci indi la ci camp bi. dañ lay yóbbu ci prison yi du jàgg ne dañ lay bàyyi ci camp bi prison boobu ñu ngi fi def deux euh, camp bi deux jours trois jours lañ fa def. ñu jëlee ñu fa yóbbu ñu Guyana. Guyana benn prison la boo xam ne ci àll ba la nekk. fa la ñu yóbbu Guyana boo demee euh, maanaam ñi lay dalal. waa OM ñoom ñoo lay dalal li ñu lay wax mooy fii amuñu problème man laa yaa ngi ci biir. da ngay tëdd fu baax mbàjj yaa ngi ci biir boo bëggee sangu sangu. ndox maa ngi ci biir da ngay sangu tout le temps bu la neexee. maanaam mais boo tourné bay dugg ñi ngay gis ci biir yow da ngay tiit ba doo xam looy def. parce que prison bi da ngay gis ñoo xam ne dañuy génn seen tànk ci biteeg seen loxo yi di langal boo dee wëlbali yam ci ñoom rek sànnu wépp ay tukki. léegi nag foofu da nga naan siiw rek ñu ne na Sénégal yi génn mais da ngay foog ni fi nga nekk moo tane fa nga jëm mais fa nga jëm moo gën a métti fi nga jóge
mais loolu it ñuy fàttali mbokk yi seen rajo Benno FM 106 point 7 ngeen àndal seen émission yi ni yi li ñu des ci waxtu sax taxatu ko bari ngeen mën a ànd ak ñun ci 88 628 19 02 88 628 19 02 mooy bu mu jokkoo bi ak rajo Benno FM 106 point 0 sëñ Abdoulaye Ndiaye la ñu àndal ci jataay bi nga xam ne moom la ñu jagleel émission immigré yi ñu waxtaan lu jëm ci wàllu tukki bi nga xam ne dañ koy amal ci anine bu jaar wut ngir ñu indi solution bu ñuy jaar ba mën a jaar ci anam bi nga xam ne moo jaadu ngir ñu mën a dem ci bitim réew kon ñuy jaajëfal ñi nga xam ne ñoom it ñi ngi topp programme Benno FM 106 point 0 xam naa bu ko defee. bëggoon nañu it yow en tant que doomu Sénégal bu jaar ci su yoonu suuf bi. ba dem Libye ba dugg ci géej biir gaa géej ngir dem Italie ba nga xam ne egg ngeen ci frontière bi dox diggante Italie ak. ak Libye nga xam ne daanaka laaloon ngeen ndox moomu. ngeen am ñu ñu ngeen woote ñu woote ci réew mi ngeen jóge ñu jël si waat leen foofu andi leen Libye. bi la yàlla dimbale nag ba nga dellu si waat say waajur diggante bi nga nekkee ci yoon wi. ndax yaa ngi am ay contact ak seen waajur xam nañ ci loo nekk wala xamuñu ko.
waaw parce que bi ma ñëwaatee bi ma dellu see Libye bi ñu jàppaatee wenn ñu Libye yàlla dimbali na ma ba fi ma nekkoon am na ko fa yoroon téléphone. ma woote sama papa laa woo. ni ko dañu jàpp. dañuy refoulé dañuy indi Sénégal waaw mais diggante boobu maanaam bi ma wootee ak bi ñu indee Sénégal dafa yàgg. parce que toogaat nañ fa plus de un mois yoo xam ne mënuñu ñibbisi.
mais yaa ngi jot seen waa kër.
non non non non non keroog bi ñu jàppee laa mujj diggante ak ñoom ba ni ma ñëwaatee Sénégal.
te et puis avant ngay dem it xam nañ xam nañ ba da ngaa dekk tukki xam nañ xam nañ tukki ngolati ko.
non bi ma déparé. bi ma déparé bi ma àggee Libye bi ma déparé ba àgg Niger laa leen woo.
nee damay tukki.
ñu leen maa ngi yoon bi quoi maa ngi Niger.
te yow boobu xamuñu woon foo dem.
non xamuñu woon fu ma dem.
xanaa bàyyi woo woon soxna boobu.
ankay te soxna yi xamuñ foo jëm.
non non non non sama soxna bi may départ ñoom dama ni leen woon Mourtane laa jëm
moom nga waxoon soxna.
Mourtane laa leen waxoon ñoom ñëpp sunu waa kër ñëpp loolu laa leen waxoon Mourtane laa jëm.
te bi ngay demee bi ngay bi nga demee ba ni nga dellu si waatee ni nga ni nga dellu si waatee Libye jotul leen téléphone.
non bi may demee Niger. dañuy déggante téléphone ba Libye dañuy déggante téléphone.
mais bi nga war a embarqué nag déggu déggante wu leen.
non bi ma waree embarqué déggante wuñ mais bi ñu embarqué même jour la ñu jàpp indiwaat ci camp bi laa leen woo ni leen dañuy jàpp.
soxna si moom yow di- diggante bi distance wala mu def mat na 4 3 mois wala 2 mois.
non 6 mois 6 mois yoo xamante ni bi yaa ngi ci àll bi.
6 mois yoo xam ne maa ngi ci àll parce que màggalu Touba ah, ñun bi ñu màggalee ba une semaine la ñibbi Sénégal màggalu Touba bi ñu nee suba la lañ doog a xam ni suba la màggal ñun
yéen lan mooy wax loolu.
parce que am na vol bu fa jóge woon ñibbisi vol boobu bi ñu egsee am na ñu war téléphone ci biir prison bi lañu woote ni suba la màggal loolu moo ñu wax ni suba la màggal mais kon sax duñ xam xam naa sëñ Abdoulaye waxtu wi mi ngi jeex lan ngay xelal nag ñu demagut.
waaw képp ku ci demagul maa ngi lay ñaan di la ñaax di la wax ni nga toog Sénégal maanaam Gis- kii kii demagut yow en tant que sëñ Abdoulaye Ndiaye nga jóge fi dem ci tukki boo xam ne yaa ngi koy def muy risqué bu mag nga bàyyi way jur bàyyi soxna bàyyi njaboot dem. xamuñ foo jëm nga dem yàlla dellusiwaat la ci jàmm.
Mhm.
kon bi nga dellusee. eh, war nga yeewaat sa ñooñu réew.
Mhm.
ci nan nga leen di mën a xelale nag ba duñ ñoom fi nga awoon dem duñ fi aw. ñu xool anam bi jaadu ñu ñu jaar ci ngir dem.
ok li may wax ni ni mooy képp ku ci bëgg a tukki demal ci ambassade yi nga déposé visa yàlla ñaanal la ñu may la visa nga dem tukki mais képp kuy dugg ci yoonu suuf bi di nga ko rëccu dara neexu ci dara loo xamante ne bii neex na amu ci parce que da ngay perdre sa temps lu bari di nga perdre sa xaalis lu bari même boo duggee Italie bala ngaa dugg Italie da ngay yuuxu di nga rëcc loo fa demee parce que ñun prison bi ñu tëjoon am na ci ñoo xamante ne bii naare dañuy wax ak yow nga dëgër bopp sax ñu fetal la dama sa tànk yi parce que ñun vol bi ñu indi am na trois personnes yoo xam ne loolu lañ leen def.
te da ngay kenn fayu toog- leen da nga ku leen di faj man mosuma fa gis kenn koo xamante ne bii nii dafa ñëw dafa ñëw sax nit kii dañuy faj lii wala dañuy faj le suñ la demee ñi nga xam ne ñooy say mbokk foofu noonu ñoo lay jël di la tëral bu lekk ñëwee ñu fexe indaale la lekk wala dara te foofu pour nga gaaw fa jógee il faut sa sa président woote fa ni nañu indil sama doom réew wala lu mel noonu mais bu dul loolu mën nga fa yàgg trop ti doo am ñun dañoo mujjoon ñun di siif di génn di siif génn ci bit ci lànk na luñ dugal ci prison yi ndax dañoo bëgg a ñibbi mujj gi mudir bu mag bi maanaam euh, policier bu mag bi moo fu mujj ñëw ni dinañ leen dinañ leen jox avion ngeen ñibbi loolu moo ñu ci génnee mais mosuma dégg kenn ci ña fa nekk ñu ni état Sénégal woote na fi wala lii te ay ay ay ñu bari dañ fa daan ñëw. di seet seen waa réew mais ñun mosuma gis kenn koo xamante ne bii nii ñu ni Sénégal la jógee ñëw na fi seet si na doomu Sénégal yi mosul am.
est ce que ñoom est ce que ñoom it- est ce que Sénégal ambassade bi ne foofu xam na ne seen doomu réew yi ngi foofu bien sûr parce que ñoom seen ambassade mi ngi fee nu mu tuddati Tunisie. Tunisie la nekk. mais ambassade bi ci boppam day business. day business parce que ñun am na kenn koo xamante ne bi nii ñoo bokkoon ñoo bokkoon kii pour ñëw. ñoo bokkoon vol pour ñëw. bi ñu ñëwee bi ñu wootee seen kër dafa ne leen am na ko fi wootee ne dañ laa jàpp ñu jox la trois cent mille. envoyé nañ ko trois cent parce que six cent mille la waxoon ti mooy ambassade bi. mooy ambassadeur bi.
xam naa sëñ Abdoulaye waxtu wi jeex na li ñu cërale woon ci waxtu jeex na xam naa dañu bàyyi rek nga tàggal ko di tëri kon waaw baax na ñu ngi tàggatoo di leen wax ni yoon bi daal moom moom du yoon ku bëgg a tukki na nga jaar ci yoon bi nga dem déposer am visa. dem tukki ci anam bu wér. man sama bopp man yoon boobu moom pare naa ci. waaw te yaa ngi koy xelal mboolem ñi nga bokk waaw génération képp ku koy déglu. na nga bàyyi xel loolu. waaw jërëjëf eh, kon mbokk yi émission baa ngi noonu mu nekkoon émission bi ñu jagleeloon émission indigré yi ñu doon waxtaanee lu jëm ci wàllu tukki mi nga xam ne ñu ngi ko def di ko def ci anam bi jaaduwut tey sëñ Abdoulaye Ndiaye moo ci nekkoon suñu gan seen mbokk Mourou Makhtar jël ci présentation bi beneen ànd ak programme Benno FM 106.0